ci ngelamu wala bokk PK9 la ko ñenn ñi di woowee at mu jot nit ñi dañ daan gàddaay gannaaw bi nga xamee ni taw yi dugg nañu taw yu mujj yi nag am doole lool dugg ci ngelamu teewul nit ñi ba léegi ñu ngi ci seen ay bérébu dëkkuwaay ndax nag wax nañu ne jumtukaay yi nga xam ne moom lañuy ñu indi woon daaw moo leen may ren kenn taxoogul. ñu ngi ciy sant yàlla moom ndax ni ñu amee fi ne daaw amee wuñu ko woon daaw ndax mu dina bett ñëpp lu génn yenti weer ren nag wax dëgg yàlla maa ngi ñëw waaye bu dikkee machine bi manqué mu dem loolu nag ci sant yàlla baax di leen ci sant di ci gërëm ngeen ngeen doon na dimbali yàlla yàlla sàmbalam dimbali nu ba ndox mu jeex takk ndax borom kër moom këram dong la xaj ci kër ci ngelaw mu ONAS nag dafa renforcer lii di système de pompage bi bu baax a baax système bi nag moo leen may ndox yi nga xam ne day wàcc ci ngelaw mu ñu yóbbu ko ci point bas yi nga xam ni. ñoom ñoo di quartier yu Ngiraan PK9 Ndaamaatu. diamètre 400 boobu nag teg nañ ko ci lu mat un kilomètre lu lu teg 300 300 mètres 1 kilomètre 300 donc euh, day joge ci point bi ñuy wax Ndaamaatu Ngilimu euh, di dem di verser ci système mu Kër Ñang bi. donc suñu rôle moom moo nekkoon ñu teg conduite de refoulement bi ci cadre mesure yi nga xamante ne moom la ñuy teg pour affaire taw bi vraiment pour euh, teg. benn dispositif pour yombal ndox bi naka lañ koy génnee ci sit bi. ci station pompage bu Kër Niang fii tam gis nañu ne jumtukaay yi ñu ngi dox bu baax a baax soo ñëwee rek xool sa bët dalay may nga gis ne miir ba woon daaw yokk nañ ko ba mu kawee lool. gis itam ni am na ab groupe électrogène bu 400 kVA benn groupe secours bu ñu fi def itam mel ni yooyu bokk na ci jumtukaay yoo xam ne jot nañ ko indi fii yokk nañu itam bu baax a baax. stockage ak pompage bi nga xam ne moo amoon ci station bii di station bu Kër Ñang sapeur pompier yi ñoom seen wàll moo nekkoon ñu teg pompe ñoom nag teg nañ pompe pompe de mille ren nag boo gisee ndox bi day gën a gaaw mën a dem parce que daaw pompe bi fi nekkoon deux cent cinquante la woon defe naa ak benn conduite deux cent mais euh, bi ñuy jëlee affaire yi moom saytu ko xam ne il faut que ñu améliorer système bi pour que nit ñi di gën a gaaw a mën a dem ak ñëw euh, ñu teg fit euh, ren benn système boo xamante ne pompe mille la ak conduite 400. mesures yu ñu jël nag nekk na ay mesures yu am solo ci wàllu système évacuation ndoxu taw yi te jàpp nañu ne dox na bu baax ndax gisuñu benn débordement lu dul daal yenn jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko ci benn regard bu am ci béréb bi beneen béréb a ngi nii mu yoonu kër kàbb yoon wi di conduite bi mi ngi dem téere ji ci ab carrière carrière boobu nag du yàgg daañ ko def benn bassin boo xam ne mi ngi tollu caatuwaay ci ñeent fukki hectare ak benn